ak ginnaaw yi nga xamante ne amal nañu ko ni ngi tey ci dëkk bu tedd boobee di diwaanu Touba yemook àjjuma le 9 février ba ñu daal di saccagé station Total ba nekk ci entrée Touba daal di taal li nga xamante ne moo di arrondissement ba nekk ci Touba Daaru Marnaan gone yi benn décision rek la ñu jël jamono bi moom di attaqué que Serigne Bass Abdou Khadre ibnu Serigne Abdou Khadre Mbacké ndax nee nañu lépp lu ñu ñàkk rek moom la ndax tey ji bu ko àggee woon Serigne Mountakha fajoo dina faju ba tax na gone yi ñu ngay seen manifestation ci dëkk bu tedd boobee di diwaanu Touba gis ngeen ko ci image yi leen ak taal nañu dëkk ba gaz lacrymogène yi foo romb mu lay daal di xeeñ ba tax na ñu bëri di àddu ci mbir mi jamono bile ne ki nga xamante ne moom moo di Serigne Mountakha Mbacké na si wax balaa mbir mi di ëpp loxo ndax askanu Sénégal jamono bi foo romb saxaar see ngi mel ni tulleek mbàll ci mim réew wéy na di abonné ak partager suñu ay vidéo fii ci Tip Top ci réew mi fii lañ koy daal di traité ba mat sëkk jaa ngeen jëf.